ñetti sites yi ñuy visité tey dafa bokk ci programme boo xam ni dañoo mooy programme d'urgence de sécurisation donc euh, maanaam lépp loo xam wàllu ndox bu ñuy naan au niveau de Dakar le programme boobu dafa prévoiroon def dans un premier temps quatorze forages maanaam fukki forage ak ñeent tey jii ci quatorze yooyu juróom-ñaari forage yi ñu ngi fonctionner am na ñett yu nga xam ni ñu ngi leen di équiper am na ñaar yu nga xam ne nag dañoo échoué parce que forage da xam ci biir suuf doo xam lu ci nekk di nga def ay sondage di nga def ay étude mais mën nga dem ba ci biir ndox mooy capté lu du bëri donc forage boobu dañuy wax sa infructueux forage boobu day échoué euh, mais ci fonctionné yi tey jii mën na wax am nañu vingt cinq mille mètres cubes vingt sept mille environ mètres bu jour euh, et euh, comme dañu bëggoon egg quarante mille yi pour ñu mën a egg quarante mille yi dañuy ne dañuy anticiper ci deuxième phase bi loolu moo tax ñu def ñetti forage yi nga xam ne benn bi muy Camp Leclerc benn bi mi ngi Nord Foire mooy bi ñu bi ñuy visité am na boo xam ne mi ngi effectivement au niveau CICES forage yi ñuy visité fii léegi le 15 juillet au plus tard wala ba 30 en tout cas loolu le 21 juillet ces trois forages là dana pare mais le 15 juillet les deux dana pare bii dana pare bi ñu nekk bu noor Foire dana pare bu nekk au niveau donc de Camp Leclerc dana pare mu des boo xam ne mi ngi CICES en tout cas vers le 20 juillet par là au plus tard dana pare. yan gox ñoo koy jëriñoo. Euh, boo seetloo par exemple Nord bii ñu nekk tey. lépp lu wàllu ci Nord Foire da koy jëriñoo Nord Foire cité BCAO ak ëpp un petit peu parcelle dana ko bénéficier wu déjà Nord Foire am na amélioration parce que ak forage yi nga xam def nañ ko ci littoral bi am na loo xam ne tànn na doon nañ toog journée lëmm guddeeg bëccëg am ndox mais léegi au moins une partie guddi gi dana am fu gën a kawe dana am ndox 3 heures 4 heures fu gën a dana am ba 10 heures de temps yoo xam présence d'eau et là dañ ko bëgg bii bu paree normalement ci yoon euh, dootuñu toogati. waxtu ci ci bés bi te amuñu du ñu am ndox te lii fii léegi peut-être trois semaines le maximum parce que on est le 26 et on pense que fii léegi le 15 juillet au plus tard forage bi dana fonctionner et que population yi jafe-jafe yi ñu amoon pour wuti ndox bu neexee yàlla dootuñu ko amati. ñaata ngeen ko xayma projet yi yëpp. mais projet yi yëpp euh, à peu près 7 milliards la. 7 milliards la parce que euh, moom euh, moo concerné globalement les 27 forages yu ñuy wax yi 7 milliards la préfinancé par la donc état bi moo koy remboursé parce que déjà inscrire na ko ci budget 2016 pour ko